asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul suñu dund moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami al mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi seetaan ali imran tv asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci annabiyil mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaayu alquran bii di atadabbur ñu ciy jéem a waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala di ko jéem a settantal di waxtaane tolluwaay yi ak niñ ko war a xereñee di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu waa ahlul quran yépp bu ma ko waxee mooy ñi nga xam ne safoon nañ jotaay bi safoo alquran tax ñu di ñu wétlikoo bu ñuy waxtaan di jéem a wax li ci suñu xel di jéem a tàddabur ñoom it ñuy tàddabur fañ nekk di ànd ak ñun nga xam ne léeg-léeg boo leen taalaloon micro ñu am luñ ci dolli wala ñu ne ëskay yal na yàlla fay leen ci taxawaay yooyu imaam Aboubacar Traoré laa ci baaxoo àndal teewaat na ci studio bi moom lañ ci fas yéenee àndal niñ ko baaxoo defee imaam ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoonteeg ñi ñuy seetaan. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ya sayyidil karim wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ya safiru ahlil quran. shukran. keroog euh, damay dégluwaat suñu émission bi ñu defoon. Hmm. ak Al Amin. ci 2S. waaw mu ne Safir ahlul Quran. lam ci teg yëpp. ndeysaan ma ne ko ah loolu mooy dëgg de. ndeysaan ndax tànk boobu ngay doxe dëgg la yal na yàlla barkeel sa dund barkeel jéego yi ci alquran si la ñu xamante dëgg la ci la ñu fasante kóllëre dëgg la moo tax ma fonk la wallaay xam naa loolu fonk la yow la xarit nga <laughs> ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ah, ko macha allah alhamdulilah la kon alquran yal na ñu boole teral ñu ñëpp amiin yaa rabbal ñi ñuy bokkal jotaay bi mm-hmm. moo xam ñi ñi nekkal fii technicien yeeg mm-hmm. tàmbali ci oustaz Euh, ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñoo ñuy topp ci émission ak tadabbur dëgg la ak mboolem xeetu émission yi ñuy jàllale ci Ali Imran TV mm-hmm. yëpp mm-hmm. yal na ko yàlla barkeel amiin yaa rabbal aalamiin yàlla ko fii misaani xasanaatina amiin yawma laa yanfau maalun wala banuun wallaay dafay faral di wax ci mm-hmm. émission actualité bi yeneen ko doon wax ci mardi ja muy wax ni amilatu naasiba bi wallaay taslaa naaran xaamiya wallaay wallaay ci yàlla musal xam nga loolu rek leneen la waaw leneen la waaw amilatu naasiba waaw waaw ñooñu moom taslaa naaran xaamiya rek waaw te mooy di sonn coono bu la dut amal njëriñ du la amal njëriñ ku xëy kuñ la fay koo xam foo xam ne xëyloowuñu waaw xam nga olof dañ daan wax naan mag du sonn ci yàlla naa dee <laughs> ah, waaw moom ah, loolu lañ daan wax ñoom ngir bëgg a woon ne da ngaa war a sonn ci loolu amal njëriñ beneen baat sax lañ daan jëfandikoo mm. waaye dañ naan mag du fecc ci yàlla naa dee ma ne rek mag du sonn ci yàlla naa dee ndax man yenn baat yi su ma ci àggee dama koy àbbal baat bu bu gën a neex a wax. waaw xam nga mag moom yàlla na nga gudd fan it waru koo tax di fecc. moo tax kon nañ ko tuddee sonn rek ah. <laughs> moo tax ma mag du sonn ci yàlla naa dee. dëgg la de <laughs> dëgg la <laughs> la ah sentir nañu si ne. ah mhm. bu ñu àggee si borom. Mhm. subhaanahu wa taala mhm. dinañu teral. dëgg la te it àdduna ñaara fi nekk de. da a boog da caa bokk digle lu baax ak tere lu bon. tere lu daa mel ne ab liggéey la. te itam dara gënu koo rëy. ñi koy taxawee nag dëgg la ab kuréel la war a doon mm-hmm. nekkul ni ñëpp dañ caa war a xëy waaye kuréel ba ca xëy dañ leen a war a taxaw defe na falaw laa nafara min kulli firqatin minhum taifa mm-hmm. li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru xawmahum mm-hmm. ida rajao ilayhim loolu la yàlla wax waaw eh, <laughs> eh, maanaam mënta ñàkk moos ak kuréel goo xam ne ñoom dañuy dog maanaam allahu akbar yu baree baree bari dañ koy bàyyi luñ mënoon a def mu neex ci seen bakkan ñu mënoon koo def ndax wuti alal mhm. waaye ñoom ñu jël option fàttali nit ñi nga xam ne man naa am duñ am oto bu baax man mhm. naa am duñ am kër man naa am nit ñu ëpp ëppale leen lu bari waaye ñoom loolu mooy seen euh, euh, seen côté waaw kon nag euh, mhm. ñi buñ féetee fii day am ñu féete fee waaye loolu mënta ñàkk ndax moo nekkoon <laughs> liggéey yonent yi dëgg la macha allah dëgg la xam nga aaya boobu dañ ciy déggéey lu bari boo xoolee tey président de la république Mm-hmm. ak euh, staffam yëpp. dëgg la entourage am yëpp moo xam ministère yeeg tout. Mm-hmm. li nga wax ni loolu lañ leen taxawul parce que loolu lañ leen taxawul ñoom waaw mhm. dañu fe nekkal askan wi dëgg la ngir taxawul leen wàllu àddina la ak ak kuréel la goo xam ne ah. dañuy sonn ci njariñul ñëpp mhm. kon nag ñëpp dañoo war a comp ci seenu stoor di leen ko dimbalee waaw mooy taxe yi ñu fay ah. indemnité yi mooy euh, mooy mooy defe naa privilège yi nga xam ne jox mhm. nañ leen ko yooyu li ko waral mooy liñ jàpp ne ñoom dañuy sonn ci njariñul ñëpp ah. allahu akbar léegi nag fama baalu ko ki nga xam ne day sonn loo xam ne lay jëriñ àddina ak àllaaxira mm-hmm, mm-hmm. ko gën a yee nag ñu war ko taxawu ci wàll boobu moo tax am na réew yoo xam boo fa demee tey ñu mel ni ay oustaz Alioune Sall ak ñi ñi tool bu mel mm-hmm. noonu ah, liñ leen di defal ci ay xéewal kenn xamul ni mu toll dëgg la ñoom dootuñu namm dara parce que li tax kii ba ñu nekk moo tax posture ba ñuy nekk parce que xam nañ ne la ñuy njëriñ réew mi ak askan bi ak àddina bi moo raw sax li nga xam ne moom la waa àddina di jëriñ ci seen biir dëgg la donc loolu message la boo xam ne. macha allah ñu jàllale ko. macha allah bàyyi xel ci lu mel. am na solo baax a baax. am na solo euh, teraluñ la. Mm. sëñ Mbàkke ngir dañ la war a teral nii rek. Mm, mm, waaye dañ lay teral parce que danga nekk ci loo xam ne. yàlla xam yenn saa yi nga déglu nit mu wax. loo xam ne mu ne sëñ Mbàkke rek moo ko dégloo ci suba yàlla xam na ne génne na ma ci loo xam ne wala njëriñ na ma ci nàngam waaye li comprendre ma ko woon waaye dama amoon problème si nàngam waaye bi ma ko dégloo macha allah nàngam nàngam nit ñi de dañoo baax waaw dañoo bëgg lu baax lool waaye nag li nga wax nii ab jéego bu rëy la jéego bu rëy la da daan am bu njëkk gis koo xam ne danaan maa warul jàngalekatu alxuraan bi nàngam fii ne ko maa lay defal nàngam ñu may nett li rek <laughs> euh, ñu maam sëñ mot dem bu sookoon mm-hmm. bi mu dogoo ci taalif téeréem boobu nga xam ne mooy tafsiram bi Diyaawu Nayrayni yal na yàlla fayal ñu ko Ceerno Seydou Nourou da ko waxoon ne ko mhm. diirug nga tàmbali tafsir bi ba ba ngay pare mhm. maa la bëgg gàddul sa dépense maanaam li ngay dépense oog li nga soxla lépp damaa bëgg nga wax ma ko ma daa xam li xew ma warlul la ko te yow nga toog tafsir <laughs> ndeysaan nee nañu diiran bi mu toog di tafsir waaw ba keroog muy pare ba tafsir bi nekk fi di fi jëriñ ba ilaa yawmi diin tiyaaba jàng wallaahi nee na mu ko waxee da ko <laughs> da koo teggilaat ndeysaan ne ko daal benn téere laa bëgg wax ko turu téere ba hmm. yaakaar naa téere ba nifeer la amoon wala nifeer yaa la hmm. nekkoon Thierno Seydou Nour daa dem foofa wuti ko daa dem foofa ñu jox ko téere ba mu recopier ko bind ko hmm. indil ko ko mu man a doog bokk ci ay delluwaayam ci tafsir bi nga xam ne moom lay bind cest à loolu noonu la mbir yi mas a amee mag ñi woote itam mag moo fi jël ci réew a a baax dañ ciy tudd eh, Cheikh Sidaaj Malick ak Serigne Touba. Euh, ci ci ñi mujj lañ bokk mm-hmm. ay jàmbaar lañ. waaye ñoom it fuñ mas a jógee. Mm-hmm. day am ay ñu laxasaayu ànd ak ñoom. Mm-hmm. am luñ dolli ci seen mission boobu ñenn ñi def seen doole ñii def seen alal ñii def seen seen waxtu oh, masha allah masha allah loolu loolu loolu mooy dëgg te loolu moo war loolu dañ koy jàngee ci yeneen ti saa sallam ke yàlla yónnee bu ko bàyyi woon moom kese mission bi mën naa bañ a mhm. àgg mhm. waaye da ko booleeg ay jàmbaar dëgg la dëgg la Aboubacar Siddiq dëgg la nga xam ne fu yonent bi jaaxle mu taxaw ci wetam mhm. bu soxlee finance mu financé génne alalam bés indi na alalam ñëpp dëgg la bàyyiwul dërëm ci kër Allahu akbar yonent bi laaj ko waa bàyyil sa sa sa njaboot mu ne ko bàyyil naa leen yàlla ak yonent bi yonentam oh. Oh. noonu la am na koo xam ne xam-xam la am euh, force la am kii expérience la am. yooyu la ñuy boole taxawal ab société. macha allah te nag li nga wax nii da nga ko wax ci yonente bi sama xel dem ci. <laughs> Eh, yonent yàlla Isa. Mm-hmm. xam nga ba muy wax naan man anzaari ila allah. qaala alxawaariyuuna waaw qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullahi. man li ma ci gën a yem mooy. Mm-hmm. Isa man ansaari la wax. Mm-hmm. ila allah ñan ñooy ñëw dimbali ma. <laughs> dimbali ma maanaam ci liggéey bi ko yàlla sant. ñee ne ko ñun ñooy ñëw dimbali yàlla. ndekete bi ngay jàppale kii liggéeyal yàlla jàppale woo waa ji. déedéet waaye ci mission yàlla nga nekk. imaam foofu yéeme na de. dafa yéeme alxuraan dafa yéeme. dafa yéeme allahu akbar est-ce que <laughs> est-ce que man ansaari ila allah. xoolal xawaari yu ansaaru nahnu ansaarullah amanna bi <laughs> <laughs> waaw gëm nañ la léegi nag ñëw nañ ñun ànd ak yow pour dimbali yàlla mooy suñ bët yow lañ ko teg waaye jël nañ la. jël nañ la yàgg na dañoo bëgg a bokk yow patron. Mm-hmm. <laughs> macha allah. macha allah macha allah loolu mooy ubbi gi ñun tam ñu ciy góorgóorlu rek. Mm-hmm. di jéem a waxtaane alxuraan ndax téere bi borom bi mm-hmm. dañu koo wàccee. mu màgg lool. ndax màggaayu alxuraan da caa bokk. wala daa caa sëkk ñu ne wax yàlla la. dëgg la wallaahi. bu doon moom la mbindeef day faatu. mbindeef dafiy jóge day jeex. Euh, moo tax sax ña doon werante ca. Euh, alxuraan mbindeef la wala du mbindeef <laughs> ca mexnatu xalqal quraan googee euh, ca jamonoy euh, bannu umma umma ya mm, la woon al umma bi yuuna ya fitnaal nañ ci boroom xam-xam yu bëree bëri Ablaay Ahmad ibnu Anbal ci mujj la bokk mm-hmm. léegi nag alxuraan wax yàlla mm-hmm. la Euh, waaw léegi nag <laughs> léegi nag borom bi subhaanahu wa taala ni mu toll mhm. nga xam ne ñu mënuñ koo imaginer mhm. mënuñ koo làmb di ko daj waxut ne nañ xalaat jëmmam ji ngir mhm. man koo découvrir waxam ji moom buñ ci jotee waraat war cee mu war ñoo doy ak màggaay moo tax màggaayu alxuraan foo ko takk weesu na ko foo ko takk nag weesu na ko xam nga borom bi subhaanahu wa taala moom moo ñu wax ne laqad anzalna ilaykum kitaaban fihi dikrukum wallahi afala taaqilu xoolal jooju wax waaw wax ci lu bëree bëri xoolal jooju am nga euh, alquran mhm. géej la waaw alquran dañu wax géej mais raw na géej dëgg la waaw dañ koy misaalee géej mais raw na géej parce que géej boo ñëwee tànk ci wallaay nit du mën a ñëw ne ah mm-hmm. kii de sëñ Mbàkke jaar na fi tànk ci du ko mës a xam waaw ak nu doo ci mën a fay ci kante ci al alquran noonu la mel moo tax bi mu wàcceeg léegi quatorze siècle mm-hmm. jusqu'à présent tey la gën a saf xorom tey la gën a saf xorom ak a neex. <laughs> te du sàppi kat du sàppi. waaw bu doon sàppi Fatiha sàppi <laughs> nga ne vraiment na ma du la sàppi de. abadan abadan est-ce que yàggul sax am na imaam bu jiitee jàkka ja da mhm. mu jiitee ba pare bi ñu génne ma ne imaam bari man de man yéemu naa ci alquran mhm. ma ne ko kii bi muy jàng aay muy jàng dafa mel ni daal manqué doo ko tàkkam allahu akbar te mu mel noonu bés fen mu mel noonu bés yàlla xam na yenn saa yi nga laal benn aaya wax ci. waaw aaya mu mel ni musuma ko jàng da nga koy beneen maanaam day bees ak. yàlla xam na ko imaam li ngay wax ni ma ci xam xam naa ko bu baax a baax <laughs> léeg-léeg ma ma bëgg a wàcc baalu àq. waaw samay dëkkandoo. Mhm. ndax euh, da nga toog ba mu yàgg nga fàttaliku jenn aaya ba mu fi nga yuuxu doo ko tey. ndax day mel ne. Euh, lii moom da nga ko doon romb waaye mosoo cee taxaw. mosoo cee taxaw waaw ndax impact bu alxuraan am ak dayo bi nga xam ne moom la alxuraan doon moom yenn saa da ngay ñëw mu tegal la forus ne taxawat a taxaw waaw <laughs> léeg-léeg boo koy xalaat doo nelaw waaw doo doo nelaw man am naa ab groupe ay xarit yoo xam ne mhm. léeg toog lu yàgg yàlla xam na ne duñ mën a nelaw ndax di di xalaat ci menn mbir waaw di xalaat ci menn mbir parce que nit itam mhm. dangaa war a wër sa bopp ba gis ko mhm. waaw boo wëree sa bopp ba gis sa bopp loo gis ko dëgg la waaye boo réeree sa bopp nag ah. li wër doo ko jàpp mukk te alxuraan loolu lay bëgg te alxuraan da lay won sa bopp mu yeer la bu lay dimbali <laughs> ci nga mën a wër sa ba gis ko ngir xam yaay kan ngir xam yaay kan waaw kay xam si nga toll ak foo jëm la moo tax lu ne la lay joxoñ lu ne lu ne lu ne afala afala afala yanzuru dëgg la bërki démb may waxtaan ak sama benn jigéen ci biddiw mhm. biddiw lañ doon wax mhm. ci beneen cadre parce que dañ doon wax ci wàllu star parce que baat bi bu ko anglais waxee boo ko toppee mu dem ci biddiw maanaam ko arab it buy wax buy wax ab star it mhm. euh, noonu la am na maanaam an naj mu la koy wax nga xamante ne mooy <laughs> mooy star bi siiw ma ne ko biddiw it borom bi nee na taar la ci asamaan si waaw daa bokk ci li biddiw def ci asamaan si <laughs> mooy taaral asamaan si euh, allahu akbar wa laqad zayyana as-samaa الدنيا بمصابيح وجعلناها wajaalnaaha rujuman lishayatin allahu akbar foofu laa jëm léegi xam nga bi mu nekk e taar ba noppi mhm. daa amaat leneen lu muy jëriñ mhm. mooy ndeke day dàq seytaane yi mhm. maanaam kon kon daraja ak fixé bu ko nit yoree ba noppi nekk ambassadeur u seytaane weneen tur la am waaye nekkatul biddiw déedéet waaw nekkatul parce que biddiw darajaam jeeg biddiw darajaam jeeg rafetaayam da caa bokk di taaral asamaan di gindi nit ñi ba duñu réer seetal loolu najmi hum yahtadu nga xam ne kon ki nekk star am nit ñi ñu di ko wooye an najmu mhm. moom daa war a doon koo xam dafa war di orienter société bi ci lu am ah, njëriñ waaw ci lu am njëriñ waaye wërta doon koo xam ne da leen di fab bi jëm fële ndax bu doon bu doon ab woykat la mhm. wa shu'araahu yattabi'uhumul ghaawuun voilà alam ah, taraw ah. annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun loolu taxu ñoo jóg léegi nag kon ki siiw te te dañ koy wooyee mhm. noonu da ko war di jeexal ci loo loo xamante lu am mm, njëriñ waaw macha allah loolu mooy li ñu war a lii mooy tadabbur rek dëgg la dëgg la waaw moo moo tax ma ci joxe ay ay séquence rek ñun léeg-léeg ni ñu koy <laughs> tadabbur ci suñu roq mooy jël benn baat xool xool sens bi mhm. ba noppi xool ñun ni ñu ko déggee ni ñu ko mhm. comprendre nga xam ne ñun ni ñu koy dundee yàlla am na la ju ëpp di waxee noonu wallaahi waaw ko en applica en application ko mu nekk application boo xam ne dañ koy jëfandikoo parce que alxuraan loolu la ay application la macha allah ay alaamaat <laughs> dëgg la ay bis gi ñu génn maa ngi tegoon sama loxo ci walal axiratu uh, xayrun laka minal ula macha allah mhm. léegi nag jotoon nañ koo faram fàcce waaye ñaareelu bindu tay bi la woon xam naa su ma toppee introduction beeg suñu waxtaan wi mën nañ cee fanaan ba bët set ndax ñëpp ci loolu lañ dëkk ci téere bi di fi nuyu suñu mbokk Cheikh Fadel Ka ne woon na ma sax man ak war nañ def aaye bis bi maanaam sa ñu jël jenn aaye joo xam ne dañ ci yendu rek mm-hmm. eh, di ko jéem a xool ak eh, di ko jéem a partagé suñ gaay yi kenn ku nekk wax lu mu déggee ci aaye jooju eh, bis dana ñëw incha allah seex bi ñu gën a am opportunité ak occasion mm-hmm. pour gën a mën a exploiter yéene yi ñu am ci téere bi ak ni ñu ko bëgg a partagé groupe bi yëpp imaam walal axiratu xayrun laka min al ula wala al axiratu laka min al suñ borom subhaanahu wa mu ne alaxira moo la gënal euh, li jiitu maanaam dund àddina bii nii euh, aaya boobu euh, jot nañ ci faram-fàcce yu bëree bari bari mhm. la muy tekki ci gàttal wala la nga xam ne moom lañ ci jàngat mooy que ni ñu xam ne alquran bu njëkk mhm. maanaa aaya ay alaama la mhm. aaya ay ay ay ay kii la ñu li ñuy wax euh, maanaam ay mandarga la waaw yoo xam ne daf ñuy orienté di ñu wan lii lii la lii lii la lii mhm. nangam lii sàngam la mhm. daa mel ni ki nekk ci oto di mhm. dawal nekk ci tali bi nañ lay tegalee ay pano ngay dem di ràññee di di di mën a moytoog yooyu di wàññi di yokk di jaar dak mel noonu di moytu noonu la alquran mel na suñu dund moo tax jaa li yuallimana alxayaat xaqiqatul xayaat dafa ñoo xamal ni lan mooy alxayaat dëgg lan mooy dund waaw lan mooy sens vie dëgg dëgg sens dëgg importance bi mu am lan la dëgg la pour ñu mën a xam ne kon vie bu njëkk bi hmm. ak vie bu mujj bi hmm. ñu mën a gam-gam la ñaari xool nan la ñuy joxee bu nekk importance waaye ban la ñuy gën a jox hmm. importance loolu doon wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci li ñuy tadabbur ci aaya bi bu si njëkk mooy xam nañu xaqiqatu dunia yàlla wax ñu ko ci aaya boobu lañ taxawoon keroog Euh, suñu borom subhaanahu wa taala muy wax ni i'lamu annama alxayaatu ddunya lacibun wa lahu oh. wa ziinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaathurun fi lamwaali walawlaad kamathali ghaythin acjaba alkuffaara nabaatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر yàlla ngi présenté lan mooy viwu àddina dëgg-dëgg dund àddina bi mu ne eela eh, mu ne ngeen xam ne annamal xayaatu dunia laibun wala dund àddina bi foo la ak caaxaan kese mhm. boo xoolee li gën a euh, am activité ci addina bi mhm. mooy foo ak caaxaan mhm. football bi basket bi yooyu yëpp si laxu la parce que bañ nañ ko ba ju ju kii lañ ko tuddee fo al layib waaw layibul kuratu mel noonu kon dund àddina bi foo la ak caaxaan euh, annamal xayaat dunya laibun wa lahwun wa zinatun ni ñuy wax taar. taar taar waaw luxe. jii nii tey dañ day boo gis day ràpp. waaw day ràpp. Mm-hmm. waaw da ngay yore sa oto ga yaakaar ne oto boobu moom. Mm-hmm. moom mooy marque bi gën a am solo. <laughs> dans quelques mois da nga gis beneen ñëwaat encore boobu ràpp. beneen taxaw donc loolu mooy ziina. taar la. wa tafaaxurun baynakum ak mhm. tamit li nga xam ne mooy puukare mhm. diggante ku nekk di jaay sa moroom affaire maa la gën a nangam maa la gën a rafet la kër maa la gën a rafet la bu bëgg yooyu wa takaasurun fil amwaali wal awlaad ak course boo xam ne ëppalante mhm. ci kër ëppalante ci xaalis ci fonds commerce ci ci capital waaw yàlla nee na dunduk àdduna gi loolu dong la loolu dong la loolu dong la c'est-à-dire bu nee dunduk àdduna gi yàlla misaal ko daa mel ne mi ngi ne ñu àdduna amul solo daa mel ne moo am foñooyam waaw <laughs> xam nga imaam bu ñu doon waajal am fo. lamb mhm. lamb mhm. ji bu ko boo gisoon promoteur yi. Mhm. bu ñëwee suba la lamb ja la ñuy tàmbalee installé. dëgg la def ci stade bi wërale saakuy yi yi bale ko defar ko nangam nangam da ngay jàpp ni lii luy sax la. waaw yàlla nee na dunduk àdduna noonu la mel. bu bisu lamb ja jotee ba ñëpp dagg biyee ba ñëw toog sañ tee Euh, ñu taal lamp yi. Mhm. nangam nangam ba mu xumb. wane ko ci télé bi. <laughs> xam day xumb lool lool di riir. waaw yàlla nee na moog dunduk àddunaa yam. ñoo yam bu fa dund di riiree fi nga toll. Mhm. xaaral tuuti feeg deux heures làmb ji tas sees yëpp fëllaxoo yenn yi ci xotti mbuus ngay gis lañ gënoon a fonk mu di mu nga xam ne benn banderole la bu ñu doon takk ci la nit ñi di joggi bu ñu dem waaw nit ñi nit di ko <laughs> joggi di ko fallaxe nee na nee na dunduk àdduna mhm. mook mook fo ñoo yem suñ kër yi ñu fi def mhm. mook mook sees yi ñu teg ca làmb jaayam mook euh, banderole i mhm. ñu tekkoon a yem mbassin yeeg yooyu ñoo yem <laughs> yooyu yëpp ñoo yem c'est-à-dire euh, diir bu gàtt rek mu ràpp euh, nga woon ko ginnaaw dem xam nga boo demee ci silkul jawahiri Maraahir. Serigne Touba moo ko taalif. Mhm. da cay wax ne maanaam àdduna mu mhm. booba mi ngi wane ñàkk solo àdduna. Mhm. di wane yi ci nit mën a topp. ba mu sànkoo ba fëkk bakkanam. mu jël lekk. mu ne lekk gu neex gi sa bakkan da koy bëgg ba nga topp ko waaye boo ko lekkee <laughs> waxtu yu néew <laughs> bu lekk gi génnaatoon. dootoo dootoo bëgg mu jege la. Ah, ku ne xam na ne sobe lay doon. te pourtant sobe soosu. Mhm. mooy lekk nga doon lekk léegi. <laughs> mu ne kon jërul <laughs> dara waaw <laughs> kon boo nga xam ne boo ko imaginer da ngay xam ne lii ak mujjam kon jëralul la dara. mu ne bi ci topp mooy yëre. Mhm. yi yëre bi nga sol mu jaral la lu ne. Mhm. balaa yàgg dara ñu sànni ko ci sën bi. boo nee boo nee wutal ma sagar sagar wi ñu la daggal am bassin la woon <laughs> wala wala wala borode la woon mm-hmm. boo xam ne dafa dafa dafa dafa seeroon ci boroom ba jaral ko lu ne mm-hmm. tey tekkiwul dara ci moom beneen bi ci des nee na mooy wàllu sëy <laughs> nee na sëy moom na ko waxee sax mooy mabaalun bi mabaal nee na ñaari sawukaay yu dajala nañ mabaal nee na nee na bu boobaa itam loolu nit ki bu ko xoolee day mu jàgg dootu ko jareel dara loolu day mel ne da lay delloo ci mm-hmm. àdduna mm-hmm. nga gis ñàkk solo gi nga xamante ne moom la ñàkk solo borom bi ne mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ma la denc la gën lii moo tax walal axiratu xayrun laka min al ula imaam moo tax borom bi subhaanahu wa taala li nga wax ni moom la si teg waaw mooy kamasili xaysin aajabal kuffaara nabaatuhu summa yahiiju fataraahu musfarran summa yakuunu xutaaman jamono jii ñuy wax ak yow ku génn jaar ci bi wala ngay tukki mhm. da ngay romb àll bi mu wert nat ni taw moo xamante ni la mu meññ mhm. dafa yéem yéeféer waaw waaw ndax nu mu mel taar ba mu am mhm. parce que yéeféer yi ñoo gën a xemmem àddina ñoom dañ jàpp ne àddina rek ñoo war a gën a xemmem àdduna na woo zaahiran min alxayaati dunia wa hum an il axirati hum gaafiluun loolu mooy nag li gars yi di wooyee intellectuel waaw parce que ñun ñi ñuy wooyee intellectuel <laughs> nee na yaalamuuna zaahiran min alxayaati dunia wala fi alxayaati dunia ñoom daal adduna lañ xam ci kaw gi lañ comprendre mu jaral alaxira nag xamuñ ci dara xamuñ ci dara Hmm, kooku du intellectuel. du intellectuel kooku du intellectuel sax waaye bu dee mooy ko xam mooy ko am xam-xam kooku xamul dara. ok xamul dara kooku xamul dara boobu wax dëgg yàlla. da moo tax suñu borom subhaanahu wa taala mu ne nag wala al axiru xayrun laka min al ula léegi wala al axiru xayrun laka min al ula la muy tekk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bis bu yàlla sàkk rek moo lay gënal bi wees. dëgg la. ni ngay gën a avancer àddina bés la nga dund ko nga fekkee ko moo lay dàq te loolu mooy ak njullit nag waaw ak njullit tam àdduna <laughs> waaw bés bu ñëw suba moo lay gënal bés bi nga jàll wallaahi te mooy war a gën a neex <laughs> ci la aw yu ëppee nga góorgóorlu remplir sa compte yi ak ay tiyaaba ak ay tiyaaba maa sha Allah moo tax mu ne saabiqu ila magfiratin min rabbikum uhuh. wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ard uiddat lilladina amanu billah الله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم gis nga donc comme noonu lañ ko waaw mooy li nga wax léegi rek mhm. bés bu bu ñëw rek dafa war a dàkk bi wees parce que da nga ko war remplir ak tiyaaba moo tax yàlla ne kon jëkkalante leen ci li nga xam ne moo leen di jural maghfira min rabbikum njëggalu bàkkaat seen borom subhaanahu wa taala aljanna boo xam ne à largeur bi rek moo ko asamaan ak suuf macha allah waaw suratu duxaa kon waaw yéefar yi dañuy jéem a <laughs> euh, déconcentré yonent bi dañ koy jéem a dañoo bëgg mu décourager suñ borom moom daf koy motiver di ko motiver ah, ah. waaw da mhm. moo dàq sax na vrai développement personnel la ko yàlla développement personnel la ko yàlla defal noonu <laughs> maanaam nga xamante ne suñ borom ab motivateur la bu taxaw ci kanamam waaw fas ko yéene motiver taxaw ci kanamam mu fël ko ndax ndax ndax walal axiratu xayrun laka minal ula moo tax yàlla lim ci teg mooy wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda fatarda sa borom dina la jox ba nga doyal sëkk-sëkk beneen a ngi noonu loo xamante ne mooy dëggal lii danaa la jox ba nga doyal waaw léegi nag li koy firndeel mooy yàlla daf ko jox confirmation ay dalil yu yu yu wér mm-hmm, mm-hmm. mu nekkoon nag alam yajidka ba léegi day firi walal aaxirat xayrun laka minal uulaa alam yajidka yatiiman fa aawaa mhm. daf laa fekk nga nekk orphelin dëgg la mu daal di lay aar mu aar la mu daal di lay aar dëgg la mu ne bu njëkk bi al uulaa mhm. wajadaka yatiiman mhm. al aaxira aawaaka allahu akbar danañ ci ñëw waaw ci wala sawfa yuxtiika rabbuka fa tardaa moom moom sax dugganti naag bi waaw ndax buñ ci ñëwee li ñuy <laughs> waxtaanee mooy li yàlla jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah. ak lim ko dig ëllëg yowmal xiyaam ne dina ko jox macha allah incha allah waaw parce que jox na ko lu rëy ci àdduna àdduna moom ko ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu la ko diggee itam mhm. teraanga yu rëy ëllëg yowmal te dana ko jox. wallaay te dana ko jox te yonent bi nee na su ma sañoon ngeen bokk ci. wallaay waay waay gars yi nañ góorgóorlu bokk ci waaw bëgguma cee wéet ndax man donc dama ko jeexal. moo tax ummati ummati rek lay wax. sallallahu alayhi wa sallam ndax ndax bëgg koo bokk. waxul nafsi waxul ahli waxul ay nafsi yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna. waaw waaw yaqulu ummati. yaq mu ne mu ne moom foofa yaqulu ummatihi mm-hmm. yaa xayra mu ne yaa arhamu man rahama waaw ah, loolu loolu ko Sëñ Tuubaa wax nee na ko ëllëg yomal xiyaam bu ñëpp naan mm-hmm, nafsi nafsi nga xam ne ku ne sa bopp la doy nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sang ba ci Madina moom du wax loolu nee na moom sama xeet wi lay wax ah, waaw moom ñun ñoo ko tee nelaw ñun ñoo ko tee nelaw ñun ñoo ko teree nelaw moo tax yàlla wax ko ci alquran ne waa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin oh. muy suratul anbiya mooy mission bi waaw muy mission yërmande nga yor waaw waaw mission min anfusikum azizun alayhi seetal ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim masha Allah ba tey raufur rahim yàlla yàlla defal yërmande waaw amin amin amin amin bëgg naa lool lool ci waxtaan laa ñoo a lool xam naa léeg-léeg <laughs> te bu ma wàccut du ma mën a jaxasoo nit ñi ba lijjantiku ji te damaa war a xëy lijjantiku ji ah. day na waaw day na. macha allah yan kàddu ngay tàggoo. <laughs> macha allah kàddu yi rek di gën a euh, ñaan borom subhaanahu wa taala rek. ndeysaan mu boole ñu ci ahlul quran. amiin amiin am nañu njort bu rafet na ñu ñëpp ci la boo bokk. alhamdulilah waaye yàlla nañ ci yàlla saxal. alhamdulilah yàlla nañ yàlla nangul. amiin ahlul quran moom suñu la fu fu ñu toll rek yàlla ngi leen di gërëm. dëgg la waaye fu ñu toll rek yàlla ngi leen di jéggal seen baakaar ndax kenn matul. dëgg la waaw nu ñu doon doon ahlul quran dañoo matadi. la waaye yàlla nee na suñu matadi bi fii ñi mooy ci alquran. Mhm. innahu ghafurun shakurun kon la ñuy def yëpp mi ngi ñu koy jéggal. Mhm. waaye itam yàlla ngi ñuy tagg. yàlla ngi yëkkati yàlla nañ ci yàlla boole. amiin yaa rabbal képp koo xam ne yaa ngi topp émission ak tadabbur. amiin jërëjëf imam Aboubacar Traoré mhm. jërëjëf Ablaye ñu doon seetaan ñu dig daje ay bis kanam incha allah. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi xel Ali Imran TV di topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaanee alquranul karim Ali TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim. suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund tey